Mia Guissé wane na dooleem ak mën-mënam ci Viviane Chidid mi nga xam ne dafa jot génne benn single soo xam ne da cay rap ne leen ku mën na def ku mën na def googule Viviane def ci classe ñi nga xam ne ay jigéen la ñu bokk ak moom gem bi tey def mbalax mu saf sàpp te ànd ak rythme bu doy waar moom Viviane mu daal di cey génn ba set te wecc sol mbubbam rappeuse Viviane rappeuse gi mu mujjee doon def ay riimam yu saf sàpp ba noppi itam di ci classe ñi nga xam ne ñoom la bokkal géew bi amul kenn ku ko ca tontu mel na Mia Guissé ci Tambacounda mu nekke ca concert ga mu doon amal ca lendemain tabaski gi ca la ko daal di defee ca kaw seen ba la daal di taxaw rap rabam yu neex moom itam di xamal gaay ne leen Mia Guissé kenn mënu koo fay te kenn itam mënul fexe-fexe ba ma giim maanaam ci gàttal Mia Guissé dafay takk jëppét ci kaw a kaw te kenn itam du ko arrêté te kenn itam mënta wax a wax ba sama yëf daal di giim wàcc ba ci suufa suuf mi Mia Guissé ci biir rabam boobale moom itam ma nga cee classe ba noppi itam di ca tagg boppam loolee mooy li nga xam ne moo tax ñu bare bari ci commentaire ya ñafari ci réseaux sociaux yi kenn ku ci nekk yaa ngi xam ne ne Mia Guissé dafa mel ni jamono jile ak kii di Viviane Chidid ba tax na la Viviane def mu defaat la ca topp lu Viviane wax mu wax la ca topp mbaa nu mu mel mu mel na ca topp moom bi nga xam ne moo di Mia Guissé ñeneen ñi Mia dafa daal di tontu kii di Viviane di ko xamal ni ko ni nga ko mënee rek la ko mënee loo def rek mën nañu koo def te itam loo mën itam mën nañu ko te itam loo mën a def ci wàllu musique mën nañu def lu ko raw ba romb ko fay dem ma romb fi joojule wax te wax ci wax joo xam ne ñëpp ko daan waxtaane ci réseau police wala ñu leen di porter plainte muy diggante Racky Aïdara ak ki nga xam ne moom moo di Alaaji Dora Gueye Racky Aïdara di influenceuse bi nga xam ne dafay faral di bokk ci émission boobee ñuy woowee douze treize bay am foofule ca 2STV digganteem ak DJ Xassa moom mi nga xam ne moo di ay Aïdara dafa daal di bind ci page Snapchat am mel ni ku cee dëggal ni mariage dox na digganteem ak Dora Gueye ginnaaw bi nga xamee ne coow li fenn fu ci nekk doon nañ ko fa jaaba jonge a confirmer wana ay diggante Doro Gueye ak Racky Aïdara amal nañu aw mariage loolee mooy li nga xam ne moom la ñëpp doon waxtaane waaye terewul nag moom mi di Racky Aïdara saa su nekk muy gën a boppam ci pass snapchatam ci tabaski gi ñu génn dafa daal di posté ci pass snapchatam moom Racky Aïdara daal di xam le ne ki nga xam ne moom mooy ki fi nekkul tey moo tax tabaski du ma ci mën a sañse maanaam damay bokk ak moom naqar bi sama monsieur sama bonheur sama meilleur gâteau nekku fi Gueye Amadou Makhtar la daal di bind ci suufu suuf Gueye Amadou Makhtar nag ku ko daan dégg dégg dégg ko ci waykat yu bare bari yu koy waye bokk na ci ñoom Wally Ballago Seck mi koy waye naan ko Guèye Amadou ak Maxtaar sa kër maam bokk na ci ñooñu le Momo Jaay mi ko fi waye Guèye Amadou ak dégg nañ ci biir wayam boobule mu ko cay kañ moom mi di door a Guèye loolee mooy li tax ñu bari di samp awlaat naan jamono ji le nag ndax Racky Aïdara nekkul di confirmer ak dëggal li nga xam ne mooy mbëggeel bi dox digganteem ak Doro Gueye ak mariage bi nga xam ne doon nañ leen ko waxal dafa mel ni nag jamono ji lépp dëgg la moom ci boppam mooy ki ko wax du waxi kenn wax ji mën a nduur fay wax jagleel ko Ousmane Sonko dafa mel ni ku ko cee tontu ba noppi itam di ko ci menacé ak di ko ci accusé moom mën a nduur Faye ca émission ba muy amal foofu foofule ca 7TV ci jamono ji nga xamee ne dalal na ab journaliste bu ñuy woowee Yoro Dia ci la daal di profito dagg ab invité am di wax ay soxlaam moom mi moom may mën a ndur fay ba muy wax ci wax ji lee dafa ne Ousmane Sonko ci boppam moo yónnee ngir ñu bloqué suñuy compte waaye na ko leer naa nañu ne su bloqué suñuy compte itam am nañu yoon bu ñu mën a jaar ngir dundal suñu bopp na def lu ko neex na def lu ko saf loole man maay ki ko wax te itam bugaan tontu na ko la ko tontu doy na waaye du tee ñeneen danañ ko daal di tontu loolu kott man dama koy doyloo te Ousmane Sonko ana kan moo ko wax ni ko ñun dañu koo ragal bay pët pët yi ci kanamam na def lu ko neex waaye tamit nag du ñu tere wax suñuy soxla saa bu ñu waree wax ci réew mi dañu ci wax kenn mënu ñoo napp kenn mënuñu xëpp mbaa nga xëpp ñu ba ñu ne patt nopp ci doxinu réew mi loolee abaana du fi du fi mës a am jeex na fi tàkk dañuy wax ba sàmbay di ca dem ba Wally Ballago Seck génn na kilibub mbaroodi mbaroodi googee nga xam ne daf cay bàkk ka kër yi nga xam ne jamono jile yéeg gi mu yéeg dafa daal di métti loolee ñuy woowee inflation bi nga xam ne moo wër àdduna da wërngal këpp ba daj ko kàpp jamono jilee tax na dund gi di métti fu nekk ci àdduna bi rawatina fii ci senegal dafa mel ni ñun moom ñoo ci gën a dee dund gi ak ni mu seeree borom kër yi ak li ñuy daj weer wu jot saa su nekk itam ngir mën a yóbbul njaboot gi fay dund gi ak la ci aju muy ceeb diwlin suukar ak lépp loo xam ne dafa aju ci saabu lépp loo xam ne dañu koy dundee rek di ko def ci biiru nit ñi wala di ko def ci seenu bu yaram lépp fa metti Wally Ballago Seck profitoo daal di lancé waale message am lu mu ca yokk ne nañu tal maanaam nañu dal may nguur gi fi nekk ngir ñu liggéey nit doo ko jiital ba noppi di ko fakkatal nit doo ko jiital ba noppi di ko yàkkamti nit ki da nga koy bàyyi mu ànd ak dal ci ab liggéeyam nit ki da nga koy bàyyi mu mën a def li muy def ci tekk ak tey ngir ñu mën a gis yoon boo xam ne danañ fa mën a jaare ngir génne askan bi ci jafe-jafe bii nga xam ne ci la ñu nekk moom Wally Ballago Seck ci tabaski gi ñu génn foofu la ca plateau kakatar spécial tabaski ba ko abano stress dugalee ci takk wala doo takk ñaareel waaw wala déet waali daf ko ne yaa ngi dugg ci sama vie privée su may takk ak su ma dul takk yoonu kenn nekku ci lii teel sénégalais mooy way waali ko sek waaye leneen li sama vie privée la yoonu kenn nekku ci nañu ma bàyyi ak moom ci la abba di mu xamal ko ne ko yow mii may waxal nii yow abano stress dangaa mën a wax rek tey nga ma fiy fekk am na bis nga woo ma téléphone naan ma dama bëgg nga takkal ma takk suuf waaye xamal ni la su fekkee góor dëggantaan nga bu fi nekk di takk takku suuf ndax man Wally Seck du ma mës a takk takku suuf Abba ne ko doo takk takku suuf ak li ñu way li ñu lay waxal yëpp ci takku suuf ak information yi ma jot yëpp mu ne ko barke yonent yàlla Muhammad du ma ci mës a dugg man góor laa yàlla may na ma ma am ñeenti soxna te itam du ma ko mës a def góor yàlla tigi laa du ma takk takku suuf su ma koy def ci kaw laa koy def te Abba loolee laa la wax nee naa la bis booy def lu dagan siiwal ko ñëpp xam ne yaa ngi def lu dagan loolee ngay def dara nekku ci daanuk suñu borom du ca am lu dul fayik suñu borom moom Abba ci lay profito naan Wally Ballago Seck man information yi nga xam ne ñu ngi ma koy yónnee ci yow naan dangaa takk takk suuf ñi koy def kon nañu ko bàyyi ñoom fan la ñu jëlee information yi damaa jàppoon ne wàllu takk suuf danga nga koo maîtriser loolu kott mooy di taxoon ma oo la ngir rek nga mën ma ko defal ségam yow xam nga na muy demee yi takk ca kaw mooy Zeyna Ndour bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo ya fare ci Allô Sénégal ñoo génn bi lépp information jëlee ko ci benn xaritam boo xam ne xaritam bu ko sës dëkk la moom Seyna mi nga xam ne tuumaaloon nañ ko fi digganteem ak Sidi Diop tuumaal ko fi itam digganteem ak Sadio Mané bi la yoon naa nee nañu dana daal di am boroom kër le set soulier gi ñu mal doom ci Viviane Chidid ak ki nga xam ne moo di Boubacar Ndour digganteem ak Viviane Chidid romb nañu doom ak yaay waaye léegi xarit lañu ak xarit Viviane moo ko way ci morsom bu bees bi mu génne tuddee ko xarit ma ngi ko cay bàkk di ko xamal ne ko Zeyna doo doom xarit nga saa sama bët xonkee ci yow defandoo te patt nga cay àndal du ma dégg fenn nga toogee ma fa mbaa sax nga may néewal doole moom mi di Zeyna ñu ngi ñuy xamal nañu dana am borom kër la set juillet loolu anglais di wax wait and si wolof di ko wax la ca kanam rawul ay gët kawteef bu doy waar moo xew ci Kaffrine Kaffrine benn étudiant boo xam ne dafa daan jàngee ci université Gaston Berger bu Saint-Louis moom étudiant boobule dafa daal di ñëw daal di def aw kawteef bu doy waar dafa am jafe ci wàllum xel ay waa gile dafa daal di ñëw fekk ab jarbaatam boo xam ne ñaari at kott la am mu daal di koy faat jël aw bakkanam noonee ci lañ ko jàppe yóbbu ko gaa yi ne waa ji xelam neexul maanaam ci gàttal ay nagam yëpp nan si et je le dis c'est le premier ministre Ousmane Sonko qui a donné ordre de de de de bloquer tous les comptes bancaires des groupes de presse concernés c'est-à-dire dafa am lu gën a sournois lu làkkatu ci <laughs> ci ci ginnaaw ah, te waxuñu ko man Ousmane Sonko yow ki la ne ñun mën nañ la ragal da lay nax de ki la gëm loolu gis nga ñun boo ñu étouffé économiquement on a des moyens pour survivre dañuy man chaise bi kenn mënu ma fee tere toog pendant cinq ans li ma xalaat dinaa ko wax li nga wax lu waxu dinaa ko wax li nga def lu deful dinaa ko wax waaye tamit li ngeen def lu baax dinaa ko wax. mais li ma doon wax. cest à ki la wax ne dañ la ragal wala yow mun nga mun nga tax ñu ragal la kooku dalaa nax les propos yi nga tënee ci ñun nag man de baal naa la ndax man dama respecté kilifa. du ma la traité de délinquant dama la dama respecté kilifa mais nag moytul di tenir des propos offensants en ce qui nous concerne parce que gars nañ la tontu buggaan tontu na la. mais li ma di nga jot yeneen tontu. li ma ki la wax ne dañ dañ laa ragal da nax on sera là <laughs> on parlera. et rien ne nous empêchera de parler dóoral impôt bu ñu jox publicité xeex ñu defal lu la neex ñun nous sommes des sphinx on renaît toujours de nos cendres. mais li a la doon. essayer de gagner